السلام عليكم ورحمة الله مكين لأن يجلن زيار لأن بالحق يعني برم سبحانه وتعالى بولن جغل جدي لسوا تسوين دروس الحج مؤي جانغر تي أجي مكة رفي أجاج بي بوري كابا جي بيك جي ركن اليماني ركن اليماني موغي تي موغي تي كابا جي موغي كي بابو أه سارول ديجنتي ما حجر الأسود بيننا لبرسك moom la ñu wërale noona birig yi noona bu yeggee foofu da koy laal da koy laal ak loxoom bu ko mënul bu ko mënul laal ak loxoom jarul muy buuxante na wax bu demee ba tolloog digganteem ak xajarul aswad mu wax mu wax baat yi rabbana atina fi dunya xasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بكو دفي بعد شوي لا يوخ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نيان جو غاتلا مغي نيو القرآن واي امول نيان بوكو غنا ماتالي وا نيان جي نخ rabbana yow sama borom atina yal nag ñu dikke mooy yal nag ñu jox fi dunya ci àdduna xasanatan yiw yiw mooy lu baax lépp lu baax rek mu ngi ci biir wa fil axirati ak ci àllaaxira yal nag ñu jox xasanatan yiw yiw àllaaxira mooy lan mooy teraanga ëllëg teraanga gi ëpp lu dugg yàlla dugal la aljanna nga bokko ci ñuy gis yàlla waqina adaban naa te nga musal musal ñu ci mbëggalug safara kon yiwu àdduna gudd fan a ngi ci ci barke ngi ci tabe ngi ci lijaaba ngi ci jaamu yàlla gu yàlla nangoo ngi ci yëpp mu ngi ci biir yiw àdduna ak bokk ci nit ñu baax ñi yiw àllaaxira nag mooy yàlla defal la teraanga ëllëg yan yàlla boole bu ko defee loolu lay wax kon buy war kaaba gi ba yegg ci place boobu ñuy wax rukkunul yamani da koy laal ak loxoom bu ko mënul mu maanaam li nekk ci digganteem ak xajarul aswad mu wax baat yooyu rabbana atina fi dunia xasanatan fi l axirati xasanatan wa qina adaba annar bu defee ñu teg suñu loxo foofu incha allahu taala mu jógee suba ñu yàggale ni yàlla defal ñu dégg ak topp aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh